kàddu sant yàlla euh, sant yàlla sunu borom bim ñu mayee ñu fekkeewaat euh, ndax ndege ni màggalu daaw ñu ngi fi woon te ñaanoon nañ bokkoon na ci li ñu ñaan mu may ñu ñu fekkee déwén kon ñi ngi sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin bim ñu fekkee tey ñuy santati nag bi nga xamee ne jot nañu giseeg sëñ bi mu feddali kàddu yi nga xam ne yàgg na di ñu ko wax te muy kàddu cofeel ak kàddu ñaan kon ñu ngi sant sunu borom bi nga xamee ne ñëw nañu dékk suñuy loxo ñaan gannaaw ba ñu ñaanee dal ak jàmm ci réew mi ñaan aussi aaju bu faju kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan sëñ bi yàlla na fi yàgg te ànd ak wér te eh, di ñaan barke ba newoon ca borom Touba di saawaan baawaan ci biir dëkk bi jërë ngeen jëf nag ñu jëm ci lu solo muy installation quatorzième législature boobu tamit eh, yan kàddu waaw kàddu kàddu daal dal ndax eh, xam nga réew mi ñun ñëpp a ko bokk te ni eh, askanu Sénégal wane mat ñun acteur politique yi noonu la ñu waree wane mat gannaaw bi ñu ne tànn leen kenn ku nekk dafa tànn li ko soob bu desee lu dul suñu borom dogal ci ñi doon jongante ñëpp. ña fas yéene nekk suba ci assamble bi ñoom ñu ne fa ci seen biir yi moroom kon li ñu mën a delloo njukkal askan wi mooy ñu dal mooy ñu responsable mooy la nga xam ne moo tax ñu wóolu leen ba wàcc bàyyi leen fa ñu doxal ko te am nañ ci yaakaar ndax législature yi paase yëpp donte coow li bëri na boo ko seetee ba ci biir kenn ku ne ca fa nga jaar am na lu am solo loo fa liggéey kon quatorzième législature bi nag day nekk benn législature ci tournant historique Sénégal ndax assemblée bu amee diversité nu nu mel mësuñu ko gis daanaka c'est la première fois kon day laaj taxawaay day laaj mat boo déggee ma ne taxawaay at mat nag mooy posture républicaine ndax posture politicienne ku mu yóbbu assemblée nga ne danaa bloqué wala danaa fexe xajamal suuf si nanga xam ne liggéey ba def suuf ci cere ji nanga xam ne defoo ko kenn ku dul sa bopp ndax ndab li moom boo ci defee suuf it xamoo ndax yaa njëkk dugal sa loxo kon mel na noonu nag dañuy ñaan ñu ànd ak dal ñu def li nga xam ne askan bi yëpp a ngi koy xaar ci ñoom ndax muy majorité muy opposition muy non kenn ku nekk dafa am loo bëggal askan wi la nga bëggal askan wi nag bu nekkee lu baax rek doo seet fi mu jóge li ngay seet mooy njëriñ li muy am ak taxawaay ba nga ci war a am kon ñu ci am xel mu dal jërëjëf